gàtt xam-xam xam nga ni euh, Sénégal pouvoir exécutif bi day piétiner dafa piétiner ci pouvoir judiciaire bi quoi loolu je pense que loolu jarul sax ay wax ju bari quoi ñu si nekk di détaillé mhm. nekk si ay wax quoi di expliquer parce que ministre de la justice mooy seen kilifa ministre de la justice Macky Sall mooy kilifaam fii parquet bi doole bi mu am sax juge amu ko waxu critique magistrat yi magistrat yi aji am na ci magistrat yu noble yu digne yoo xam dañu mere politiciens non respecté la am na magistrature dañu leen respecté trop sax. am na am fulla am fayda waaw loolu man ñun ñun ngaa ñu magistrature ñëpp de ngaa ñu ñëpp de am na si ñoo xam nag kër goo dem <laughs> man rek dama dama bëgg ñu wax si euh, tournée Macky Sall quoi ñu def rek Macky Sall a def déjà gis nga li nga expliqué euh, kii bi daal si zone boobu noonu lu mu mel mhm. Macky Sall ñaata at la def si pouvoir bi ñaata mandat la am ni ñaata moo ko fi dese après pour élection présidentielle bi ñëw loolu la da nga koy laaj. non non non non non non fii ñun. Sénégal ñoom bëgg nañ mu sampaat lënd de. non non loolu Adja man damaa man damaa du ma si wax loolu du ma si wax quoi. yooyu xam nga mënoo fi def deux mandats yow nga ñëw naan da ngay def ay je sais quoi xam nga ñu ne ay foofu nga ne foofu lan la wax soxla na nga ne forage lan la wax dëgg yàlla li ko desee fii xam nga lan la mooy mu préparer élection yu transparente fexe ba jaay euh, def révision xoolaat fichier électoral bi yembal dëkk bi dalal xelu nit ñi ibbi dënn muñ créer mouvement tuddee ko nangu ndogalu yàlla xam ni jeexal na comprendre nga xam nga lu wax ah yooyu non dañuy wax nañu wax dëgg rek xam bu ñu nekk di attardé wu ay détails quoi comprendre nga xola mu toog ñu xool réew mi non mais il faut me laisser terminer il aussi man waaw xam man loolu laa gëm quoi comprendre nga xola ñu xoola xoola Adja Adja Adja bëgg fi def la tuddee ko nangu ndogal ah, ma <laughs> ah, rek pour wax ni xam ñun gis rek rek lañ bëgg ñun ñëpp yàlla nañu yàlla defal jàmm bëgguñu dara taal Sénégal kenn bëggul Sénégal rek lañ am mm, ñun a mm-hmm. borom bu def mooy legal meew te Auchan du lebale c'est-à-dire kon ñun loolu la dund ñun so ñun Sénégal rek am donc kon ñun mënuñu bëgg Sénégal tàkk bu kenn def sa bopp ñun dañoo bëgg taal Sénégal mënul nekk xalaatuñ ko tey man bu ma mënoon def si ñaan wala ci ñafe ci xeex ba Sénégal am jàmm da koy am mais gis nga bu ñu interdire nit ñi non mais il faut laisser mais ñun bu ñu gis nga li ñuy def ni bu ñu ko deful mm-hmm. ah ay bombe à retardement lay nekk